Thank you

waaw dëgg neexul yow moom nga dem ñang ñang baara xaw ma ñang baara borom jaabira yàq sa kanam gi nii jambate la ba nga far waaw ndax nduroo nag day feeñ ndax ba ci wujje ak seen tànk yi gàtt yi dama na leen gisee laa xamante ne seen jukko yee boobu ko ca dàll yàllay feeñ mën na ko ca dàll yàllay feeñ même pointure la ci waaye yow dëkkandoo eh <laughs> ah dëkkandoo tey sañ-sañ tey sañ ga de moom nag habillement da ko mën nii tamit waaye sa jëkkër nag daa mën a àpp de lii sama mag yi laa ko xàmmee ne bu mag bi de ay docteur Guèye ay njoora ba si ma ci bàccu ñun de lii la ñu jàngal fóot jigéen ju baax day fóot waaye sa njëkkër di fóot nga toog guddal say wey pose seeni ongle ak ci njëkkër baax na defu leen boo xëyee war moom bët lañ koy wax maaleykum salaam. ci waaye bàyyi du jigéen. ah mais ah. jigéen la mais yéenay ay jabaram yéen ko war di fóotal. comme que moom wax ndox rek mooy métier tey tey am jox ah man ah, tuuti. ok bref tey dama leen andil jàng bu eh, jigéen Italie. waaw sama yaay maam jaara ñag moo ko fi yónni mu am ay bagages yu mu a am donc ñu jaar fu bare bare nag fi mu toll damaa tàng foofu ma dugg si biir changé soo ko mën a ñëw ñu waxtaan ah. eh maa ngi ñëw. ndaa naan nga de xaw ma la xamul de waaye man xam naa la man Guèye Ndiora Basi. oui cousine ça va tu bien. oui ça fait un mais tout va bien Ah ouais, je suis là, ça fait une semaine, hein? Une semaine, ouais. Ah ouais. C'est pour des papiers, hein? Ok, ok, pas de souci. Ok. Ok, ciao. Yo. <laughs> a ñuma noo sant mon ne wele xanaa fii la bët yam susi de ngeen fi dégg susi susi lay woo nee là nee na susi lay woo waaye souci du fi su su moom bu soobee yàlla moom kër gi moom fi ñëw. Fatia li comportement ñagam bi mu yore mu ñëw teg la ay tànkam di woosu si. Fatia moom ñëw na yow yaa ay. te genre yi xaaraan rek la ñuy def. ba pare naan ko safa safa euh, baal.

su si nag bu ñëwee lépp lu fiy lekk dina ko lekk. bon ñooñu dafa akara yi. loo leen jox ñu lekk ko. lekk ba pare ñun ñëw bu ñu moytuwul mu fuufaale ñu. pas gub ci boole nag dafa ne pas de souci mu ne souci ak kon est-ce que pas du ñëw. kon maa mooy copain wam bi pas. ñoom moom. ba pare loolu jaaxaluma de saagam bii boo demee kër. xule xule yi la jaar def ñoom poti xule. ñoom bu ñu lekkee ba pare dañuy denc fii. waaw kee bu jaga bi xet gee ko xeeñ. dafa bëgg su paree. mariama du ko accepté bee boo mu xam. ba ngay jóg si de ceebu ngeen teel. man da xam lu ma si naqari. sama jëkkër ji nekk fii dafa dem Fuuta te man yàlla xam na ne ci yàlla wéeru nag. ci yéen laay lekkee. kon bu woowee suuf si indi paa man fan laay lekkee tey. yow xaaraan bi ngay moo tax du la arrangé. du ma bu ñëwee doo lekk moom. ah suuf du ñëw. ñoom ñaar nag kenn du ci ñëw yow moom mën nañ laa dugal waaye suuf moom. du ñëw du ñëw. c'est paay du ñëw. ah dafay un baar. ak ñoo a pëj ndax pat yi ñuy dundee duñ xam ceeb. tout ñoom la ñu xam tout xanaa yow sax boo jógee France wala Italie nga sañ sa yére. mais yaa ngi toog. ay lekk rek la waaw mais alors naka fële instant bi jóge ngeen ci primavera bi yéen a ci été bi. ah oui léegi moom euh, ta euh, seddaay bi sonalatuñu tàngoor gi moom moo ñu xaw a sonal. ok ah mais euh, actuellement moom il faut que mu mel noonu mais tey moom da bëgg nga toog xaar xam nga ñu defal la ndogu bu baax soxna yi berndeel la lu tax nga dem ndax xam naa nam nga place Sénégal bi. ah nam naa ko trop. Ah. mais xam naa du ma mën a xaar ndogu. lu tax. loolu sax xam nga lu ma jeexal. Uh-huh. mooy que ni Sénégal lu tax mënul bàyyi jëw.

weeru koor sax waroo jëw sàkkamtumaa ci biir weeru koor te jëw c'est pas bien rafetul jekkul aussi lu nekk nag dégg naa ko fi dégg naa fi euh, madame Brouette ak euh, sama téléphone bu ndaw man ñun Europe taluñu loolu dañuy liggéey pour ñëw investir Sénégal yaa ngi dégg mais téléphone bu rafet sañse rafet ñun loolu intéressé wuñu pourtant dafa bëri mais intéressé wuñu ma je préfère que ngeen toog fi di jëw dama bëggoon ngeen jug ngeen dem uti liggéey moo gën ngeen toog fi di doo jëw c'est pas bien ok xam naa ndog bi moom duma ko mujjee mën a xaar ndax inspi dama xaw a yàkkamti mais mënoon nga ko xaara ah? non bàyyi ma woowal leen kooku noonu rek nan ngeen ko tuddee waate woon sa yéen susi xaar ma woowal leen susi rek mu ñëw ndogul leen kee moom ku ma neex la ak missoo bi nu mu ko wengalee noonu xam naa dama koy foto rek yóbbul ko madame Viviane Wade. bàyyi ma dem ñii rek. ñi koy ñi koy sis nañ ba pare nee nañ damaa mun lekk. dama bàyyee naa la de. non la ko dégg nga ko mi ngi dem. yow baaxul. yow daal lépp ak yow rek bi la yaa ñu amel ak sa musóor bi rek mel ni ay nopp rek. yow yaa raw ñëpp sa greffage yu mel ni jam sa bravo yaa raw ñëpp yéen ñi ngeen bëgg seen àdduna euh, topp seen àdduna di jëw téye sa loxo yow ngay mel ni ku bokk ak buri bàcc li dara soof bay bëgg a dee jëlee sama gan ba bitim réew mu ñëw fi ngeen di ko jëw xolama kii moom xeefam yi muy mel ni ay nopp xale <laughs> yéen ni ngeen bëgg a jàpp seen àdduna pour la la maman eh xolam moom leer na ma yaa jiite jëw yi sa bakkan bi mel ni mbootu mu toog yaa raw ñëpp jëlé sama gan ba bitim réew mu ñëw fi ngeen war ko dalal war ko téral war ko sigil mais Sénégal daal japp nañ né bo jugee Europe wala yow nga xees wala ngay lak france rek déggo olof ba seen xel mom jëw rek mo ci nekk mais changé leen touti hein bi ngeen jima a changé sax am benen esprit bu bokk ak bi ngeen yoré bu len do ci kër gi de. maman yi munoo noppi yow hein lo rusloo ngeen ma torop yeen ñaar ñi surtout yeen ñaar. yéen ñaar moom yaakaaroon naa ne nit day ñëw ci kër gi ah bu demee ne jabaru docteur yi nañu baaxe waaye nit dugg ci kër gi naan jabaru docteur yi ndek ay jëwkat lañu maa ko def seen kanam yi yéen mosuloo ngeen ma torop cin yow moom yaa raw ñëpp leer na na ma bu fi sa jëkkër di jógee nga mel ni maman xam sama ma toroxal de sama jëkkër nekk nga ma ko tiire sa fier na toi wax nañ leen dëgg nag de xanaa Eu tô...